baax a baax si xarit. tey man si je comprends bien ousin bi ma gis ak ousin yi ma daan gis am na différence parce que ousin bi may gis dafa dal posé mu mel ni dafa am ñeneen nit ñoo xamante ni dañoo nekk ci ginnaawam naan ko ousin nii ngay defee bul defee nii àndal ak ñii jëfal nii. waa mën naa nekk dëgg la. Mm-hmm. ndax tey damaa tëdd ba guddi. ma yeewu suba mm-hmm. ma xoolaat quatre ans si ginnaaw. cinq ak xam ne bu njëkk ba nga xam xam ba muy téye million. ba pare mbay feeñu de. bàyyi xew baax a baax. Mm-hmm. man def naa fi carrière sama carrière deux ans trois ans. Mm-hmm. ki ki kenn xamul Pawlish. Mm-hmm. waaye da ngeen fàtte loolu. fàtte wuñ ko. waaw booy waaw ba may def sama tournée Europe man man bu njëkk ba ñu xamewul moom xam ni ma xamee woon ambiance ñëw jël micro. pare bak woy comme musique gaa musique day wute na mais comme laa def ma ma musique ñuy yuux ñaata école laa dem ñaata école laa dem ñu may fay dama doon dama doon see man Ouzin Keita dama doon see chaque jour 5 millions école bu nekk 500 mille sa 10 10 ñaata la. am bëjë du ma bàyyi ma fenn sama danseur bi tukk fu ne école yu mag waa sax doon yéeg wàcc bu ñu doon yéeg wàcc sax doon yéeg wàcc bu yéeg wàcc di yéeg xale yuux waale may Ouzin mu yéeg pib bi mu ñoon yuux di fay ma toj programme toj école bu ne kon tey jii ma def yëf dof fu ma dem damay bokk man at pire laa ma feccee nga ne fecc fecckat la ma comédie nga ne comédie ma defee yëf dof def dof laa ma bërëngoo ñu usin ka dof la <laughs> ko ko comme comme artiste artiste complet nga yënga ma théâtre ngeen tudd yàlla mais am na benn sequence mu la gis euh, Pikini euh, nga nga nga nga sol ci kii def doon doon bandi. waaw du agressé ma tuddee Mike. Mike <laughs> xam nga tam lépp euh, lépp ci ay façade la. Mhm. bu ma neex tey jii mën naa dal nekk tubaab. Mhm. ça va nga ma ça nekk beneen nit. Mhm. di di xool nag di wax nànk daal. yenn ma yuux naaw. ñu dugg ci combat bi parce que combat bi man bi dugg sànq gis naa ay butéel yu ma dal saafara si bari. te yow Serigne sépp say xarit lañ te Pawlish dem na actuellement dem na Dubaï euh, moom mi ngi préparé foofu combat bi ma gis ci salon yi ñi nga xamante ni ñoo nekk ci koñ bi parce que fi nga dëkk ni ñi ngi wàcc ñi def ay 2000 2000 di préparer ay t-shirt ñi di préparer ay lacoste ñi di def ay 5000 5000 pour waaj li nga xamante ni moo di combat bi mais nag nit ñëpp jàpp ni Pawlish bu la jàppee doo doy ndax yow mbilim mbàcc nga daal di daanu. daan ko daam fu mu yam mën naa toog di wax yow léegi di jug taxaw di wax yow léegi wunu fa toog léegi man ni leen rocc samay tànk mën na ba leet waa bokkul bokk te li nga àdduna doo déglu Pawlish Mbaye bokk ba ibbi mu ne piis lépp na doon dëgg mais mais Ouzin sa ngémb dina garaaw de moo jaaxal ñëpp moo war a ngémburaat mais fan ngay ngémboo yow fu may ngémbo fu ma dëkk laay ngémboo mais fii ngay ngémb yo yow fii ngay ngémb wala fan ngay ngémboo xam nga ko ma sax lépp surprise lay doon est ce que man ngeen ma est ce que man ngeen ma Samba Ndour. Samba Ndour. xam ah, Samba boobu Touba. da <laughs> nga xam Samba Ndour. xam naa Samba Ndour. Samba Ndour sama xarit la sama lépp dama leen yàgg. Hmm. wala man ngeen ma Sokone. séeréer waaw man sama papa Sokone la dëkk. ñii kon Pawlish am na problème. man Pawlish sax bi may xas bi may xase bambara wala ngeen ma Mali man ay bambara laa de sama sama papa. Euh, sama sona papa. may mun a maa ngi nuyu à passage moo ngi nekk Sokone. Mhm. moom séeréer la. Mhm. moom samay yaay la. Mhm. benn question. samay doom baay ñi ñoo ngi sanc ba. ñi ñu ngi ginnaaw raay. sama kër ñëpp sama famille papa nan. ñi ñoo ngi euh, Mali. ñi ñoo ngi Ndar. Ndar Ndar tam euh, samay doom baay yaa ngi fa samay maam. kon tey dëkk bi. sama côté turandoo Alpha Sèye xam nga laa tudd. Mhm. man man Alpha Sèye laa tudd ñaari tur laa am. Mhm. Alpha nga kii. Eh, eh, Alpha mhm. sama mooy sama mooy sama turu papa. sama turu yaay mooy Ousseynou. mais combat bi daan Pawlish Mbaye noq ko noqaal ay supporteram. déet ëpp naa def. li fas yéene def. mais mais soo paree ci soo soo jógee ci Pawlish parce que gars yi euh, nee nañ combat bi du fi yam parce que Ouzin ni muy ni muy ni muy salfaañee di bërëngoog yooyu bu ko indilee Ouz bu ko indilee Pawlish Pawlish du doy jouru combat mais Pawlish nag am ay sëriñ ay soxna ay lay àndal ak yooyu noonu. man soxna Aida boobu ndax ñoo ko bokk soxna Aida manqué nu passage kooku sama soppee sama yaay la. jàpp ci combat bi. de soxna Aida sama xarit la soxna sama yaay soxna dama gis bëgg soxna ba ma koy bëgg ba problème bëgg ko soxna ba mu dëkk Diourbel laa ko bëgg. nga foo nekk. Ah, mais combat bi kon dina doy waar est-ce que ko combi. Euh, maa tax maa tax Pawlish Mbaye daaw maa tax maa tax Pawlish dama. Ah, yow yaa tax mu dem Dubaay. maa tax mu dem Dubaay maa tax dama si sonn Aïda xam sax yoon dem sa sa vendredi ba ma fa fa soo dem maa bëgg ma taral ma ma dama fa vendredi ma damaa fa chaque vendredi doon dem tey damaa noonu la naa tey la vendredi te maa fa jël oto dem. dem fat sonn <laughs> mais euh, dégg naa ci am na ñoo xamante actuellement ñi ngi Casamance ñii dem nañ Casamance ñii dem nañ côté Mali pour affaire mystique bi. mystique bu demee bu demee Casamance moom du doy ndax sama am ñoo ngi Casamance man maa gëmul affaire mystique affaire gàllaaj la. mais combat nga am. waaw combat la ma gëmoon kenn waxtu ko par exemple bu wutee gàllaaj fukki gàllaaj juróom boobaa genre na bëre ndaay mi na bëre. sama rab bi ma ànd bi nekk tamit bi ma bi doon léegi ne. rab bi ma doon nu mu tudd. genre tudd. Ndeye Marie Anamu. Ndeye mu <laughs> bopp bul jug sa loxo bu mu jug de <laughs> sa loxo bu mu jug mais nag euh, euh, mënuñoo ñëw fii ba mu jeex te waxuñu li nga xamante ni moo di actualité euh, masoon nga ko fee xas en 2014 je sais pas la date exacte moom Mbathio nga xas ko fi ba mu crise fi ba ñu yóbbu ko hôpital tey ñu dégg nii moom ak ki nga xamante ni moo di Pape Hann dañu am problème tey Pawlish kii jaawaleeg Pawlish rek baal ma de maa ngi jéggalu bul dóor <laughs> tey mu nekk ci ay situation en tant que jigéen en tant que artiste lan nga koy wax. loolu du ma si loolu euh, nga waxoon loolu. Mhm. li passé la. mosoon mhm. am problème am moom. Mhm. ba ma tax ay kàddu wax ko ko. mu daanu feebal ñu yóbbu ko hôpital loolu France woon du Sénégal. waaw loolu euh, ñu def benn erreur maa moom waxante wax. yaa ma gën a xam ñoom ay dara dugg si ñoom euh, mambaas dugg si. na suñu doom la lépp lépp ci la passé. après ñëw. Euh, mu baalu ma ak ñu juboo mu ne sama rakk nga sama lépp nga ñu baante ak kon te ji dabaay baal bu mu jotee moom sama jigéen la moom tam sama jigéen la kon loolu du ma si dabaa xam nga tam ànd jigéen la ndax yàgg-yàgg ni ni ni ni ni ni juboo mbiri showbiz tax mbiri showbiz yaa gis léegi raayante waxante waxtu ñoo damante presse damante tribunal boo lëggee ñooy ànd tuloonte ay doom lépp mbiri showbiz tax mbiri showbiz mun na doxante waxtu ñaaw waxantu lu ne defante lu ne ëllëg nu juboo donte ay doom li mu resoo biso mhm. loolu dama si da mhm. euh, tey <clears throat> ñi ngi waaj élection locale euh, ku ne xam na ni citoyen nga et ni aussi sénégalais nga euh, tey lan ngay kàddu yoon ngay yëkkati jëkkoo les hommes politiques politique yi moom daf bëri xeex bëri ay xuloo mhm. politique moom fi ku nekk ku la saf ngay jël woote ko ku nekk ku la neex ku nekk ku dal sa xel mu nga jël ko daa dafa dogal ne président yu bëri sama xel nan waaye yoofu gi ma dëkk birim ñu ngi masala ku baax sama nit démb Birame Ndiaye Yoff nga dëkk wax dëgg nekk nit ku baax gëm boppam mhm. da dafa dëkkam mhm. macha allah mhm. Moustapha Tall tam doon na xëccoo maire Yoff waaw ku nekk ki nekk ki ki nekk ki la saf moo la ñu ma saf bëri na du ma wax ah di nga wax ñu ñëpp samay nit nan ñëpp say nit waaw ba sama nit démb la sama nit la mais lan ngay wax sénégal yi euh, parce que aussi tamit gis nañ yàqante bi bari na euh, chaque jour ñu gis ci internet bi ñii di saagante ñii di weer nit ñii di génne vidéo yooyu lan lan nga ciy wax sénégal yi. xam nga loolu lu ko waral. Mhm. wóorul nit am si moom confiance. Mhm. jël kenn def ko confiance doomu ndey kooku day day gis nit day ñëw sax di jooy. Mhm. da gis da gis nit ñëw sa da gis nit sa ñëw di joy da gis nit sa ñëw attends eh, damay. di sëriñ Fanday ma wax boo waxee ki di wax ki man du du ma xam lu may wax. waaw. ah. compa euh, xam nga xam nga mbir suuf bi dafa garaaw. Mhm. Euh, fan laa tolloon man fan laa. yaa ngi ci ci yàqante beeg yooyu noonu. waaw mhm. yàqante bi dafa garaaw. Mhm. day gis nit ña nga am nit confiance. wan ko sa xarit wan ko sama doom ndey nga. fekk ay bu toog etna bi dalay yekk keteme keteme keteme sa nit si jéggalu de Ousseyn ndànk rek sa nit kese mu mën a toog yàq la yebal ay nit mu ñu lay yàq am ñoo xam ne yàq Ousseyn ni dafa ngi yëngatu de non am ñoo xam ne doon yàq sa doon xam waaye yënga taa ba yàlla taal sans sama mu gën mu gën mu gën nga bu nga fay yënga si àdd du nanga mu ñëw yàlla ma ko def ma ko si jaam yëngeen mhm. yëngi oto a kenn ko konne bi si kanam nañu konne mhm. yëngal si àdduna xol ki ñetti mhm. nga takku si kër si kër ki ñetti mhm. muy soxal di di iñaan di ñetti wax laa wax yow de. wax nga wax. Sénégal mhm. ñii ñoo soxal iñaan de loolu ma li ma jaaxal ñuy jàkkante di waxandoo ci wax wax ñaaw ay yëngu yëngee nu teg du am dara ñooy teg accident accident bu ñaaw dem autoroute c'est bi ñu tëllee woon dem géej lab ñu bëri den soxal iñaan daf nit lu bon man ni tooñ ma man taxawee sa fois du faral sama fa ñëpp taxaw. ba nga romb wax ma ko ci ñaaw Ouzin Keita hee tudd tur bu ñaaw wax ma euh, squateur ma ne ko yàlla yàlla na sama àkk daal weeru ko ma woo ba ngoon dafa jéggi camion baa tël ndaayam moo squateur bi baa mi ci musique ba mu ma ko jox moroom ko ñaari tànk yi bii di daaw bii di daaw ñaari tànk yi bii jaar gauche bii jaar droite ma Ouzin ay Ouzin ni ko te ko naa ko nit du tooñ doomu aadama ak mhm. doomu karam nit moo soxal am ba dem bëkk dem mooy njaay nañ ko dugal si internet bi ne ay photo jaamul feeñ ay photo taat ñu jiin ko moom ay xaytam ñoo xam ne moom moo leen ebese woon nit moo soxal mbiru bi dafa garaaw mm-hmm. waaye wante bu sa bu sa ndey nit kenn xamul loo sa ndey tokkal yaakaar moo ba la sa boo juddoo mm-hmm. sa premier tokkal dafa war am solo moo tax ku am doom mm-hmm. ku am doom muy góor muy jigéen bu juddoo damal ci paab damal ci paab bu la jege mu bind la xaatim. xaatim nga boole ko lem jox ko xale bi mu naan tokkoog si kii xaatim tokkoog boobu dafa war a garaaw xam nga loolu laa. yow Ousseynou est-ce duñ la sa toqal moo am doole. yow xanaa moo alxuraan dafa war a saf. Mm-hmm. alxuraan. Mm-hmm. xam nga alxuraan xam ba jàppee jàpp na. Mm-hmm. xam-xamu jooju donc ngay jàpp tey suba mu xew. suba nga jël sàgg mu fay. waa xam alxuraan nga jox ko alxuraan ngay xaatim nga jël jàmb ko. bu ko jàmbee ba ba ko jàmbee. nal ko def si leem ñu tala si faatee tal si lépp nga takk ko ki xale ba dafa baax moo tax mooy tokkal ma loo sa ndey njëkk a tokkal kenn du man na man na euh, ma yaa dafa dogal ne maa ngi jégalu nag wax ji mhm. sama yaay ba ba ma kii avant may tokkal mhm. sama yaay xam man seex laa woon mhm. sama si dafa gaañu man sama yaay kii ñoo ko rawale ay jinne ñoo ko rawale sambak nag mhm. sama yaay ay jinne ñoo ko rawale hôpital Dominique laa juddoo dum dum dum sama yaay ba may rawale jinne ñoo paat sa sa famille daanu woon yàlla jinne ñoo faat sa daanu sa famille xam saa ba nu yeewoo dañ fekk sama yaay toog si bi moom ay doom avant ñu may may kii mhm. avant avant ñuy dem avant sama papa di dem di ñëw. Mhm. pour ñu jox ko pour suñu waa dëkk pour waa Mali. Mhm. jël waa Mali ñëpp solo ku nekk nañ jël lu ne. Mhm. jox ñu tokkal ma avant boobu tokkal ma ba tey. Ah, kon yow Jean ak Marie yooyu daal ci Dominique lañ la toppee ba léegi nii. waaw sans bag nag ma ma ma ma de. non xam naa ni mbalagoo parce que man sa man mi toog ak yow nii xam naa ni am na loo àndal. parce que li ma dóor sànq du sa loxo parce que yow diisee woo noonu. Oh. mais sama épaule bi dafa am problème ba léegi. ba tey ñu bëri ñu bëri may topp Ouzin Keita mais Ouzin seetama nangam nangam. mun naa la war ma ko def bëgguma ko moo tax c'est que nit loo gën a bëgg sa aar da nga koy def mooy aar laa bëgg. Mhm. ma bëggoon seet di faj. ma toogee dëkk bi yëngul ku seet da nga koy bàyyi. kon doo moromu ay ñoom Salbeeg ay Serigne Moustapha Dramé ak ñooñu. man loolu dama dama sox dama dama ay détails la ñun ñëpp dama leen jox cër ndax mosuñu toog ba ba tapas ma wax wax ma ñaaw mhm. tey du ma tooñ nit mhm. mun naa toog yenn saa kay de bës toog na di nangam barak am yaas mhm. waaw du ma toog di xas dooma du ma du ma ma at si toog di xasaate ma du ma xas kenn waaw ku ma xas doolo ko rafet du ma xasaate de kon bi moom Jean ak Marie di ñooy daan ñooy daan Pawlish mën na ko bañ daan sax mën na kaa gis sax waaw problème ko daan le problème ah, fii waa yëpp ne nañ Pawlish lay daan de waa waa koñ bi bi ko wax waa koñ bu ñu ko waxee pay yoon dafa ay ti set waa koñ bi waa koñ bi taxu ay kaar birim ñu ngi may na ma kaar Euh, sama xayit yi euh, ñoom jiili. Mm-hmm. ah ah ah, ah ñoom. Euh, ki nga wax sànq Ndour. kan nga wax yow kii Omar Sow. waaw oh, Omar Sow may may kaar jox may million. Omar Sow bëgg na ma la ma jox ay gestes yu bëri. moom laa lay wax. Omar Sow dama defal Omar Sow asalaamaaleykum salaam ay million may ma. bul tëb de maa ngi lay gis yaa ngi waaj. di di ma defal waa ba waay seen saalo boobu. bul tëb bul tëb eh, eh, combat bi dëkk bi daa war a toj tëb ma de sama tànk boobu karamp. ah karamp <laughs> del entraîné nag. maa ngi crampe de maa ngi entraîné de seeg sama tànk may may def yenn saa yi ni ma toogee moo am moo am mooy loolu. Mhm. waaw kon sant yàlla daal. Mhm. Euh, lan ngay tàggatoo Sénégal yi ak ñi nga xamante ni ñooy fans yi ak ñi nga xamante ni ñooy waaj combat bi. waaj nañ combat bi waaj xam ne dinaa daan. Mhm. waaj na tam sama maa ngi a soirée bu rëy itam Ouzin Keita. Euh, sama euh, raxas dama sama baaraamay sakki sang bi moosa bi. ma kaaw la ngénte. bu ma jàppee fan la après naan wax. na ba jàpp naa jar ka fee far mu échec. après mooy loolu kon dugg na YouTube bi ngeen tàppee Bara Mbaye Seck saa. Mm-hmm. léegi dama am Instagram bu bees. Mm-hmm. dama am Instagram bu bees dama ko si ngeen dugg. Mm-hmm. sama Instagram bee paase nañ kaa piraté. Euh, sama portable mayoon tam dafa war ci tas. léegi dama bëgg ngeen dugg euh, Instagram. ngeen def Ouzin Keita officiel boobu moo baax. voilà merci beaucoup amis téléspectateurs c'était Ouzin Keita moom mi nga xamante ni moo war a jàkkaarloo ak ki nga xamante ni moo di Pawlish Pawlish nag jot naa ci ay information que ni tey incha allahu rabbi dina ñibbi ci Sénégal parce que ma nga Dubaï ñibbi si na dem kon dañuy da dafa day day day nax sénégalais yi. demal woon ñibbi si kaay ma ne neex na ne ki otom bi xam nga ki otom doole am otom doole bi am am oto Euh, xam oto doon xam dakaa dakaa raxasoon dakaa dakaa defoon na air na kii son air yàlla moo ko mhm. boobu nag defaa na ko doole waaw maa benn gaay bu nekk si koñ bi mhm. benn xaytam mu benn xaytam euh, benn xaytam benn xaytam benn xaytam bu nekk si si si si koñ bi mhm. euh, la moo ko génn bi defaraat raxasaat ah, ah, kon te mën nañ gis suba mu génn ne keneen noo ko way oto de waaw waxu dëgg même oto la même oto la daf koo pentiraat. Hmm. loolu information capital la. Pawlish Ouzin nee na boo génnee nga dañ laa may oto sa oto bi danga nga koo changé couleur kenn mayuloo oto Paul Ouzin ka wax nag. oto banque ngi ci bi nee oto baa ngi ci tali bi. mi ngi ci banque bi voilà di leen ñaanal jàmm ju bëree bëri eh, Télé Sénégal TV dem leen ngeen xool abonné leen lu bees tàq dina ñëw ak Abdou Saliou Sey incha allah rabbi merci beaucoup à toi Ouzin Keita yàlla la yàlla defal jàmm Baara mbay Zaki San <laughs>